ginnaaw ab recours boo xam ne rek tey jii cour suprême ak cour CEDEAO daañu ko càmbar ngir xool bokkaatam ci yooyee jongante bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi Le Soleil yéenekaay fellu ko ca wet ga na tànk bu banku mbaamu tàlli ba faw tey jii nag danañ ko gis ci Ousmane Sonko ginnaaw dogal gay bawoo rek ci cour bu justice bu CEDEAO fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ndax dafay wéy di des ci kaso bem déet loolee yéenekaay bi euh, xëy fësal ko Le Témoin yéenekaay ne verdict bu nar a ànd ak destin lay doon ci Ousmane Sonko ngir mu xam ëllëgëm ci wàllu politique fii ci réewu Sénégal diggante Ndakaaru ak Abuja yeewi askan wi ak Lacoste ña ngay woo askan wi ngir ñu daal di nag wàcc tey jii ci mbedd mi collectif bu cadre Casamance yi di jébbalu bataaxal kii di président Macky Sall ngir mu bàyyi ci nu mu gën a gaawee kii di Ousmane Sonko ñaari verdict ci benn fan moom lay xaax tey jii ngir xam ëllëgëm moom Ousmane Sonko njiital Pastef bi woon loolee nag moo waral muy woo askan wi ngir ñu yeewu yéenekaay bii dellu siwaat sax di xam ne dakkal gi ñu dakkal lépp luy njaayum carburant jii ci biir Ndakaaru yor yor na message daal la jébbal askanu Sénégal moom Ousmane Sonko ngir nag ñu daal di jug ñoom ñëpp bu ko defee lépp luy sa àq ak sa yelleef nga mën koo jot laas yéene kaay daal di dellu si ci lëgu Ousmane Sonko di xam ne ne cour suprême ak cour bu CEDEAO tey jii nag daañu wax Ousmane Sonko ndax dina bokk am déet ci élection yeeg daañu ko delloo delloowaat ci liste électorale yi lu mu ci mënti doon yéene boobee nag xëy na fësal ab nataalam Ousmane Sonko boobee jamono nag yeewi ak lakostu ña ngay woote nag mobilisation bu am solo ngir jàkkaarloo ak aju ci ëllëg Ousmane Sonko ndax day bokkaat ci liste électorale yem déet loolee nag moom la témoin daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk Mamadou Lamine Diante na tey jii aljuma ju am solo la ci ñoom ndax nag ci la ñuy xam Ousmane Sonko ana fu muy mujj waaye tamit xam ndax démocratie moom mi ngi woy di am fii ci réewu Sénégal am déet loolaa waral nag muy sàkku askan wi ñu daal di jug amal ab mobilisation bu am solo ngir won seen bopp way politique yi Sud Quotidien ngi mel ne ku toog cib nen ginnaaw bi ñuy xaar ñaari verdict yu war a bàyyeekoo ci justice bu CEDEAO ak cour suprême ñeel coowal Ousmane Sonko préfet bu ndakaaru jamono ji nag mi ngi tere motocyclette yi daal di daw gouverneur ba di ko nag feelu tere lépp lu jëm ci njaayum carburant eh, ci boobee jamono Dakar dem dikk nag moom ma ngay dakkal lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikkam fii ci réewu Sénégal Walf Quotidien ne Sénégal gu nar a tàng lañ nar a gis ni ki eh, ginnaaw yu manifestation yoo xam ne rek ñi fare bi ak ñi ànd ak leader bu Pastef bi woon yi ci Macky bàyyi ci nu mu gën a gaawee kii di Ousmane Sonko mu fekk boobee jamono 700 milliards yi nga xam ne rek Kaffrine xëpp nañu leen ko ci programme d' prioritaire yu yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Soleil dellu siwaat moom jiite réew mi mu ngi koy amal jamono ji nag La feelu ko ca wet ga ne président Macky kay ma ngay tàggatoo ki milliards yu bëri yoo xam ne rek digg na ko ci tournée économique boobee muy amal 24 heures dellu siwaat ci infrastructure yi nga xam ne rek Kaffrine na koo daloo journal wàllum justice libération xëy dellu siwaat ci coowal oustaz Oumar Sall mi nga xam ne rek retour de parquet la am waaye tey jii ci aljuma ji daañu xam lëgëm fu muy féetee réew mi quotidien dellu siwaat nag ci li ñu ndar université yi mouvement bi ëmb jàngalekatu pur yi daal di nag ñaaw lu lu nu mel ba fu ñaaw lu yem yéenekaay bii di réew mi ba tey la ñuy des wax ci wàllu people nag di ñu xamaleeg ci on the beat hitmaker la moom nag mi ngi tudd Anna Thiaw waaye nag dellu siwaat na ci waxtaan wu yaatu woo xam ne séq na ko yéenekaay def ay projet ma jeexalee ko ci wàllu tàggat yaram stade yéenekaay di dellu siwaat ci jongante bi nga xam ne rek gaynde yi doon nañ ko amal mu di tàggatu boo xam ne def nañ ko ca jam ñaajo tàggatu boobee nag baral nañ ci seeni jéego sunu làmb nag di ko feelu ca wet ga ci tontu goo xam ne la dëgër de tontu na ko kii di Siteu ni ko dinaa la song ak xel dinaa la duma te dinaa la daan mbokk yi li gën a fas ci yéeglekaay yi jàmm ak jàmm société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen de presse